mais ji li ñaari mbër yëpp yaa leen doon tëggal tey jii lu tax lan moo la tànnaloo Siteu. Siteu ñoo yarandoo ñoo bokk ko ñoo def lépp làmb boolewuñu dañoo bokk di liggéeyandoo di wàccandoo yarandoo ba tey may tëggkat moom buy mbër moo koy tëggal mën a tëgg sax boolewu ma ak moom xam nga su ma xamuloon dara sax maa koy tëggal guy gi làmb moo ñu boole. mais tamit mu nekk suma grand nekk ku ma bëgg ba ma xam ko mais làmb la moom xam na ne tey làmb la du ma ko tëggël du ma ko ñaanal ndam yaa may dégg du ma ko tëggal du ko ñaanal ndam si ta laay ñaanal ndam si ta laay tey ba mu neex mais moom xam na ne ku ko bëgg laa man xam naa ne ma bëgg ba buy bëree keneen ñu eggalewaat maa ngi moom li ñuy def. combat bi bu passé da nga koy tëggal. bi mu mujjee bëre moog boo ñaa fi laa taxaw di ko tëggal incha allah bu bii passé bii ñëwaat maa ko tëgg gu gi maa ko jox ay chorégraphe su ma su ma su ma lépp la mais tey si ta incha allah